di rafetloon bi ak télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg gi ca la ñu yàgg seeg yéen la ca gën a fës fasu fatuk Bassirou Faye gannaaw ba ko procureur jiiñee eh, tombong yi ak njabootam xëy nañu weddiko ba mu set eh, moom tong moom nee nañ nag dara ci loolee procureur wax du seen doom kon eh, moo rey teg ci li ñu ni bokkut woon ci policier ya fa waroon a nekk nijaayu tombong yi xam leen na ni loolee waxi kasaw kasaw la Amnesty International ci kàddu ko Seydi Gassama ni responsable bi euh, wees wut nguurug Sénégal coow la moomu di wax waxtu woowu di wéy euh, fële ca université ndax bu fekkee ne nguur gi Euh, tombong la ñu joxoñ étudiants yi ne nañ seen morom ya ko fekkee euh, du kon euh, policier tombong la ñu gis ni moo faat waaye beneen policier la ñu wax askan wi gis ni nañu traité dossier bi ak luñ ci mënti am yéex na examen bi ñu jàpp altine ñaar fukki fan ci weeru octobre foofee ca daara ju kawe ja waa première année yi jotagul kon seeni bourse nee nañ dàquñu kon perturbé yëf yi ndongo yi nee nañ li ko waral mooy dañoo sonn mënatuñoo dund ndax dërëm yoruñu ko Eh, Tambacounda bu ñu faagee taw yu bari ya fa wàcc eh, tax ne nag foofu am ñu ca jëlee ay gaañu gaañu ñu bari it fi ñu toll nii eh, seen dëkkuwaay yàqu fa situation ba toll ak gouverneur ma xëy wàcc seeti leen lu ñu ca nam danañu fa jokkoo ak ñu fa toogal waxit ci ndóol gu tar gi ci dëkk bi Youssou mbargaan gisee anthropologue gisee nu ni mel loola waral nag léegi xeeti yalwaan gune moo fi am na fi Nafissatou Sylla dina ci dikk ndax tey ji moo di bis bi àdduna bi jagleel xeex wàllu ko ndóol ñaari eh, livre ci wàllu wolof it pexe du ñàkk ak eh, sëy xare la jagleel nañu ko askan wi dinañu ci taxaw naka noonu dossier tey bi eh, ñu ngi ko jagleel rek lu soxal mode année 60 bi nga xamante ni moom moo dellu siwaat ba ci coiffure wàllu afro ak Sara Cissé lay doon ñu toftal ci yéene kaay ak tàggat yaram ni si kon mbokk yi ñu faram fii dellu kon nga xam leen ci ànd bi ak télévision Futur euh, Média xibaar yi nag nañ leen ko waxee gannaaw bi nga xamante ni procureur génn na wax ci fàttu ko euh, Bassirou Faye ñu joxoon ci baaraam tongoon kon euh, Wali ak njabootam nag ñoom ñoo xëy addu la procureur wax lañu ñu buub teg fële loole lépp dara mu ci seen doom du mooy ki faat rax ci dolli la ñu ni woon waru fa woon a nekk ak ngànnaay yu ni mel du woon bi policier yi yor xam na la ni loolu lépp mbiri kasaw kasaw la Chérif Dia. xambin ci faatu Bassirou Faye ginaaw bi procureur de la république génnee jàpp ni kin jot ne moo faat étudiant bi mooy tombong wàlli nijaayam daal di jokkook ñun ci téléphone jàpp ni loolu amul. mais Sénégal yëpp tey yéemu na ci loolu yëpp am biir Sénégal un agent de la police qui servait dignement sa euh, dignement euh, euh, nation ñu ñu jox ko les moyens de l'état mu def son travail ngeen dellu neen waru fu woon nekk ay na ay waxu kasaw ko yu teg du demul mu jógee ci ay autorités judiciaires ay ay autorités politiques kooku c'est honteux dans le Sénégal d'aujourd'hui suñu ko yaakaar Sénégal tey dinañ dund lu mel noonu lu ñaaw la ci Sénégal. nijaayu alkaati bi daal di jàpp ni ku jiit njaag nguurug Sénégal ñooy njaag rawatina police ndax ñoom ñooy responsable lu la xew ca université. doom boobu policier eh, doom boobu waa policier la il en service commandé police moo ko jox oto. police moo ko jox moo leen di jox armement police moo leen jox ay éléments en tant que gradé et qui gère un groupe fu ñu demee ba loolu yëpp am mu dawal oto jël ay blessé université yóbbu leen ba école police bu ñu waxee warul nekk en service mais kooku c'est du n'importe quoi sombo fan lay jëlee oto police fan lay jëlee arme police fan lay jëlee ay éléments yu mu yu yu mu commandé pour ñun ñu participer aux émeutes lañu wax leneen daal lañu wax leneen. jàpp nañ ni nag njaboot gi duñ bàyyi mbir mi mu yomb. daanu jël ay avocat ngir aar ki nga xamante ni mooy seen jarbaat di tombong waal yi. s'ils veulent que Crou puisse en prison mais ils sont libres ils vont le faire nous on trouve avocat ñu xool nuñ ko si génne. mel ni kon coow li bëri na ginnaaw faatu étudiant bi di Bassirou Faye famille kiin jiiñ ak ki faatu yëpp jàpp ni ki faat étudiant bi nekkul tombong waal yi. Euh, ci euh, wàllu woowu Amnesty moom it euh, dugg na ci coow lii lañu gis daal moo di lu jiit njàkk nguurug Sénégal ci boppam moom mooy njaak coow lii yëpp Seydi Gassama gis ni ñoo ko fi indi Ibrahima Camara. werante bi di wéy ci mbirum faatu étudiant bi di Bassirou Faye am takk der bu ñu teg loxo ndax njot ni moo ko def yeneen i kàddu daal di jib si mbir mi. conférence procureur dafa gën a xelu Sénégal yi rek. waxuma suñu xel ñun ñi nga xam ne ñun ñoo fi nekk te pour xàq ak yelleefu doomu aadama mais Sénégal ci seen bopp ñoom la procureur yàq seen xel maanaam fi ñu doon xaar ay leeral tey ay lëndëm lëndëm rek moo ci am. ñu bugg ñu gëm leen ni ko waa yi ki nga xam ne moom la ñu tuumal waru foo nekk te ñëw na fa yore ay fetal ba di tiire di rey ay nit mais kooku alkaati la moroom al moroom alkaati yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon université mais xam nañu ko. Amnesty International di sàmm àq ak yelleefu doomu aadama di joxoñ baramu tuuma nguur gi ne ku njig ñàkk mooy njàkk. c'est responsabilité ñoom nguur yi dafa engagé wu ndax Bassirou Faye eh, euh, bal bi ko fat rek du loolu moo xewoon keroog université kur ci boppam maanaam euh, ñi nga ñoom ñu jiitu université nee nañu lu ëpp téeméer ak ñaar fukki étudiants dañ leen gaañoon keroog ay gaañ yu metti am ñoo xam ne ñàkk nañu seen bët. am na ñoo xam ne ñàkkanuñ seen loxo am na ñoo xam ne dañu am damay dàmm ñu métti yoo xam ne laago la ñuy am ba bés bi ñu génn àdduna. feeñal dëgg gi ci mbir mi mooy mbébétu kuréel gi di Amnesty International. ñu ngi laaj non seulement ki nga xam ne moom Moriba Bassirou nañ ko wër ñu jàpp ko ñu atte ko waaye ñëpp ñi fa demoon keroog def ñaaw ñaawteef da leen war a topp ak ki leen ko sant de genre expédition punitive bi ñu defoon keroog foofu loolu police yi mënuñu ko def su dee jox ñu leen ay ndigal. ki leen doon digal bëgg nañ ko xam. enquête bi di wéy jiixi jaaxa dëkkee xelu ñi sàmm ak ak yelleefu doomu aadama bés bu set yaakaar judd rek daal di naax saay si mbirum Fatou Bassirou Faye mbir ya xewe woon nag bu ñu fa delloo foofee ñoom étudiants yi ci boppam ñoom it procureur li mu wax euh, gisuñu ci seen bopp ndax euh, bu dee ñoom euh, tomong lañu ñu joxoñ baram nee nañ seen i morom ñañu wax ni daal ka ñu wax ni moom lañu gis mu tiire ci kaw Bassirou Faye du kon takk der boobee di tombong ba tax daal bëgg nañu nguur gi nag dikkaat ci ak i matukaay na leeral yëf yi Fatou Bintou Conté Alioune Diagne gannaaw bi procureur Serigne Bassirou Gueye génnee résultat enquête si faatu Bassirou Faye étudiants yi nga xam ne ñoom la fekk ci université Cheikh Anta de Dakar seen xel leeru si dara. voilà enquête bi dafa xaw a flou parce que man d' les informations si yi ma jël si sama camarade yi bon euh, kii euh, bi dafa xaw a flou parce que euh, témoin oculaire bi moom ku mu waxoon ak ku ñu jox ni bokkut quoi parce que témoin oculaire bi dafa ne waaye dafa xaw a xees te ku wax ni. moo xeesul parce ma yaakaar na war nañ dépasser foofu quoi yaa wax li li di lii man je pense que on doit mener l'enquête avec beaucoup de personnalité ak xarañ yu doy. ñenn ñi sax jàpp ne bettu leen. ndax nguur gi mësut bëgg leeral li nga xam ne moom mooy faatu étudiants yi am fii ci université Cheikh Anta Diop. étudiants yi li ñu doon xaar moo moo am quoi parce que étudiants yi ñoom kay newoon nañ résultat yi moom du baax parce que gars yi état bi dañuy def lu ko ne mu joxe information yi fausse information pour mu daw kii quoi responsabilité. te ñoom réellement réellement suñu xoolee suñu suñuy defee seen enquête bi normalement ñoom war nañ xam kan la mais bëgguñ ko def bu mu leer loolu man loolu laa gis ci affaire bi quoi. li tax nga jàpp ne def responsabilité rek parce que ñoom ñoom ñooy naan gars yi nañ ñëw fii suñu waxee gars yi nañ ñëw fii ñu ne ñoom xamuñu kan moo ko def réellement ça veut dire ñoom bëgguñu wax réalité bi dafa yomb trop. bu ñu sañoon nag lépp leer maanaam enquête bi jaar yoon. jëlee suñu temps lépp. pour xool seetaat ak mbir mi pour mu clair mais gis naa ne daal am na des parce que ba léegi ñu ngi tamante dëmm te loolu war na moo dépassé quoi. ki faat Basirou fay nguur gi ne mooy tomboowaal yi étudiants yi ne ñoom kënu gis bokkul ak tomboowaal yi jaaxle jaar ci diggante bi mu mel ni coow li ba léegi ma ngay wéy fee ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru bu ñu desee ci daara ju kawe ja ba moytuwul beneen coow ñu ngi ko fay séentu altine ñaar fukki fan ci weeru ko octobre ndax étudiant première année yi jotagul seen bourse nee nañ daal suñu leen ko fayul ñoom euh, danañu perturber examen ya ñu fa jàpp bis boobee maanaam altine ji ñu mal euh, li ko waral nag du bëgg a yàq wala lenn euh, dañu sonn dërëm bu ñu dundee amatuñu ko Idrissa Diémé la ñu dénk seen kàddu mu wax ci ak Salimata Seck mooy dañoo xaar ba sonn te xam nga mu tuuru mais nag lu ñu ne ministre yi dañoo bëggoon ñu régler problème bi à l'amiable sans muy am ay perturbations maintenant d'ici lundi bu amulee réaction ñun dinañ dem yàq ji ay examen yi te loolu gënaluñu kon nag ministre bu bañee loolu nañu fay suñu bourse yi d'ici lundi. boo amulee sa bourse non seulement doo mun a assurer yow sa ticket restaurant. doo mun a ah assurer sa transport. doo mun a assurer tamit say document ah ñu wéy ba tey ci wàllu xibaar yi waaye dañuy dem kon ba fële ca Tambacounda wax nañ leen ko ci ndoxteel li taw bu war bari daal bu fa wàcc euh, def na fa ay euh, yàqu-yàqu am na sax ñu ci am ay gaañu gaañu askan wa nag euh, dégâts yi bari na Moussa Omar ma ñu fa toogal mi ngi ci ligne bi Moussa gannaaw bañ la nuyoo lan mooy situation bi foofu exactement. voilà ngoone ñu ngi lay fay li ñu jàpp ci situation bi rek bi ñu ànd ak commission régionale. promo protection civile bi ñu xoolee tey jii jafe-jafe yeeg yàqu-yàqu yi bëri na ci wàllu gaañu gaañu yi ci biir camp militaire juróom-ñetti nit ñoo fa am ay gaañu gaañu gaañu gaañu yi toppatoo nañ leen depuis dem di leen faj waaye nag li fa yàqu ci camp militaire daanaka amul feneen parce que foofu camp militaire yi dafa nekk ci montagne moo tax ngelaw li ba mu ñëwee la mu fa yàq daanaka bëri na ci waxu kii di colonel Ngiraan Ndiaye moom mooy commandant comme zone bi nee na. ñu yónnee nu mu gënee gaaw benn avion bu soxe ko foofu ci Ndakaaru Ndiaye waaye itam ba tey benn mission génie civil ngir ñu ñëw defaraat yàqu-yàqu yi évaluer dégâts yi ci noonu itam président commission régional protection civile muy gouverneur bi ki ko fi toogaloon di Moustapha Diaw gouverneur administratif moom nee na daal fi mu nekk nii lépp lu jëm ci wàll euh, ay soutien danañ ko jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy woy loru yi loolu nag li ñu jël ci mesure bu njëkk mooy euh, préscolaire bi nekk ci biir école Saint-Joseph boobu moom dañ ko tëjandi parce que la fa yàqu ci clôture bi bëri na la fa desandi fissure yi ngàppeeku na ba nga xam ni di fa jàngee wóorul leneen lu ñu mën a jàpp moom mooy ci Gurel Jaaje ci quinze ans bugu ay poto ak ay garab ak yàqu-yàqu yu bëri na fi mu nekk nii dañuy def évaluation bi recensé doog a nag jublu ci wàllu ndimbal bi. ñanti ma ne doon nañ fa wax ay wàllu blessé wala jotul daal kenn ku ci yam gaañu gaañu xam nga ci ci wàllu blessé bi démb ci ngoon dem nañ ci service urgence nekk ci centre hospitalier régional bu Tambacounda major bi ñu fa fekkoon mu monté en garde wan la ñi nga xam ne ñoo blessé woon mu ñetti xale yu góor yi nga xam ne gaañu woon nañu foofu kenn ki bopp bi moo toj keneen ki ci wetu jóbi noonu la zeng doon xotti ko ñu toppatoo ko keneen ki mur moo daan woon ci moom waaye nag fi nga xam ne moom mooy ci biir camp militaire ñoom dañu am seen infirmerie bopp donc am na juróom-ñetti nit yoo xam ni parce que ci camp militaire yi tax mu doy waar boo xoolee appartement yi fa nekk dafa am surtout bloc yi yeeg seen centre dentaire beeg yu demee noonu toiture bi yëpp tay daj lenn ci garab yi nga xam ne dafa daanoog yooyu looloo tax foofu sax xaw a gën a bëri am juróom-ñetti blessé yàlla def taw bi bëccëg la am parce que bu doon guddi daanaka ci lay gën a ëpp ay musiba mais bëccëg bi mu am tax na daal euh, ñi nga xam ne ñoo gaañu woon muy juróom-ñett yi toppatoo nañ leen seen wér gu am leneen li nga xam ni itam gis nañ ko muy particularité taw démb bi am na benn partie ci Tamba rawatina ci quinze ans boobu doon na taw ay xeeri glace loolu nag mu nekk loo xam ne bëriwuñu di ko gis fii ci Sénégal ñu koy euh, gërëm di ko sant moom Moussa Omar Gueye moo ñu toogal fële ca Tambacounda doon di ay leeral ci situation euh, ba fa am taw ba fa wàcc daal ba am ñu ay blessé waaye it yàqu-yàqu yu bari euh, bu ñu desee nag ci lu ni mel ñi nga xamante ni daal ñoom ñooy waa ANACIM nag ña ngay dànkaafu ñi sóobu ci géej gi rawatina kon Ndakaaru jàpp nañu ni daal ci wàllu woowu dana am kon ay waag yu mag yoo xamante ni dana romb kon ñaari. ñaari mètre ba daal xaw a jege ñett yi euh, ci cot bi jàpp Ndakaaru kon ba tey ci ci àjjuma ji nag euh, bu juróom benn waxtu jotee la war a tàmbali euh, ñuy sàkku nag ci nappkat yi ñu daal bàyyi xel lu ni mel bu baax te topp dogal yi ci wàllu kaaraange nee nañ yëf yi nag boo moytuwul samedi 18h maanaam samedi ci ngoon lay tàmbali tàmbaliwaat dal googe xibaar bi APS siiwal ko kon nappkat yi nañu ci bàyyi xel bisub tey ñu jagleel ko xeexandu ndóol ci àdduna bi ndóol googee nag kii di anthropologue xam-xama màcc ci wàllu kaskan wi nañuy dundeek nañuy doxalee Youssou Mbargane gisee gis ni daal la mu jur moo tey ji eh, xeetu ko yalwaan eh, gune façon bu ne daal eh, ci wàlluk ñaan am na ngir daal mën a saafara say tawat ndax ndóol googee waxtu wi dafa yokk ci réew mi loole la dénk Nafissatou Silla reportage ak Marjan ñàkk gi gën naa tar ci Sénégal ay at a ngi nii nag njaboot yu bari di ko dund mu ci tund ba wala ci dëkku taax yi la muy gàllankoor ci askan wi nag xóot na loolu te bari bu ñu sukkandikoo ci anthropologue bi. dafay indi benn angoisse ci nit ñi nga xam ne ñi amuñu amuñu xaalis amuñu accès ci dara amuñu aussi ku leen jàppale dañuy nekk ci benn angoisse existentielle mais itam mun na indi dof mun na indi ay trouble psychologique am na ñu nekk ci mbedd mi di di wax mais soo seetee c'est que ñàkk bi la. ñàkk gu metti gi nag dem na ba léegi. ñu seetlu ni ay façon utum xaalis yu bëri moo fi am. maanaam da ngay solu ba rafet ñëw sone ci benn kër wax benn histoire ba nga xam ne ji dara taxul ci ñu jox la dara nga génn demaat ci beneen kër di sone di def noonu. bu jëkk góor ñi rek la woon góor ñu mag nga xam ne dana dem ba mënatuñu mais léegi. dafa am góor ñi nga xam ne ñu ngi toll seen diggi doole ah di ko def am jigéen mi nga xam ne aussi ñu ngi seen diggi doole di ko def ak ay xale yu tuuti yi nga xam ne ay mag ñoo leen di euh, manager. situation bi ni mel nag ay pexe politique yu bëri jaar nañ fi ngir jéem ko fi dindi. président Macky Sall def dafa euh, indi bourse familiale mais itam affaire bi pauvreté du ñàkk xaalis rek ñàkk ay jumtukaay la ñàkk mun a faju ñàkk mun a jàng ñàkk. mun a yëngatu daal waaye loolu yëpp taxul daal mi ngi yokk mu ngi yokk am na ay mais mi ngi yokk ñàkk bi nag di phénomène boo xamante ne bëri na loolu ci àdduna bi ñi muy laal nag ñu leen di wàññi ci ay millions biñ ci gën a seetlu nag di crise économique mondiale bi sonal loolu néew di doole yi Nafissatou Sylla ñu gërëm ko daal di euh, wutali euh, faati Dieng ma ca ndaje ma nga xamante ni jëwriñ jiw jëkk ji moo koy seq euh, waxtu wi kon ak waa kaw gi waxtaan ci wàllu nawet beek lañu ñu dëgmal ak la ñuy dund ngir jëm ci indi ay pexe Faty ñu ngi lay nuyu. fu ndaje mi toll ak lu fa jot a jibagul ci kàddu. Euh, nag moom fi mu ne nii mun nañoo wax ni euh, noppi nañu la fa jibe ji ay kàddu bokk na ci waa kaw ga wax nañu jafe-jafe yi ni jànkonteel kiitu njiitu jëwriñ yi wax nañ lu jëm ci wàllu napp gi càmm gi euh, mbay mi wax nañ it lu jëm ci àll bi ñoom ñoo ñu waa kaw ga it wax nañu li nga xamante ne si moom la njiitu jëwriñ yi ak ñooñam war a def ngir lépp daal di sotti bokk na ca nag ñi nga xamante ne si ñoom la seqaloon waxtaan wa ay euh, naataangoom ñu mel ni ñu euh, dénk euh, càmm gi ku ci mel ni Aminata Mbengue Ndiaye wax nañ itam lu jëm ci ponk yi nga xam ne def nañ ko ci tabaski ki ñu génn waaye it nan la ñuy def ba daal di gën a ñoŋal lu jëm ci wàllu napp gi bokk na ca euh, ngoone euh, tey yi ñu gën koo xoolaat daal di indi code yoo xamante ne si itam euh, day tax ñu daal di tere napp jën yoo xamante ne si lépp loo xam ne du coof maanaam ndax coof nañu fi mu ne nii bëri na mën nañ koo napp waaye ay jën yu bari yoo xam ne ay yaboo rek ñoom seen dañ koy tere ba ci kanam ñi nga xamante ne si ñoom ñoo nekk biti réew la mbir mi soxal njiitu jëwriñ yi ba mu leen dégloo ba noppi nee na nag jël na bu baax waaye it euh, li man lu mu xam rek moom mooy wàllum consommé local ñu gën koo dëggal maanaam bay dunde bay dunde nag euh, njiitu jëwriñ yi nee na lu mën a nekk la waaye faaw nag ñu gën a ñoŋal lu jëm ci euh, càmm gi ak it njur gi ngoone di fàttali rek ne lii moom mooy lu njëkk mën nañu sax guleet njiitu jëwriñ Euh, di daje ak euh, waa kaw gi ak ñi nga xam ne ñooy ay naataangoom euh, maanaam bi ay bés desee donc ci mu dem ca pencum ndawi réew ma def déclaration de politique générale lim ci jublu ne balaa muy dem foofee ca pencum ndawi réew ma u xam bu baax a baax yenn ci ay jafe-jafe ba bu wax ci ay ponk yoo xam ne bu nu fa jógee ngëneel lay doon ci nguurug Sénégal ngëneel lay doon ci waa kaw gi ngëneel lay doon ci lu jëm ci koomug Sénégal ngone ngom loolu rek la ñuy xaar Faty Niang di ko gërëm di ko sant des nag ci kaw gi ak jigéen ñi seen i jigéen nag euh, sargal nañu leen ndax journée internationale jigéen yi kaw gi alxames ji euh, la ñu ko jàpp jëwriñ ji di Mariama Sarr ñu dénk ko euh, soxna yi xam ne da ni dana taxaw ngir nag saafara discrimination yi nga xamante ni moom moo am ci wàllu woowu jigéenu kaw gi nañu leen waroon a taxaw ak yu ni mel lu ca bari sooke nee na nag dana ci indi ay saafara waxtaan na ci ak Thierno Fall la ministre Mariama Sarr les femmes rurales sont constamment confrontées à de nombreuses difficultés. jigéenu kaw gi bëri na lu ñuy jànkonteel ci ay jafe-jafe ci seen wàllu dund ñu bëri ci ñoom dañ leen a boddi ba tax ne seen taxawaay du feeñ ci lu bari ci wàllum suqali réew mi am suuf doon na loo xam ne jafe-jafe la ci ñoom am ndox tamit rawatina ndox boo xam ne dañ koy jëfandikoo ci seen mbay mi looloo waral nguur gi fas yéene taxaw temm ngir jàppale leen saafara seeni mbëbët du tee am jafe-jafe jafe yoo xam ne ña ngi koy jànkonteel wante nguur gi dina ci taxaw temm ngir indi ci ay saafara. gouvernement est résolument engagé je l'ai dit tout à l'heure à poursuivre sa politique de promotion des rapports de genre équitables afin de permettre de valoriser pleinement leur potentiel. ndaje mi nag ñu nga ko doon amale fële ci euh, géwul ñu wax ci euh, chauffeur yi gare routière bu Ziguinchor ñoom maire ba futu lañ def jëmale ci euh, bus horaire yi ngir daal naqarlu seen doxalin diru fukki waxtu dañu leen baareel kon ngir ñu dugg ca dëkk ba ak ki manifestation ñu ànd ci ak Boubacar yi chauffeur bët Saalum réew mi mën a suñu jëggal seeni naataango yuy dawal horaire jóge Dakar jëm Kaasa te jaaree ko Ziguinchor lu ñu daal di def rek mooy baare buntu Ziguinchor kenn du dem kenn du dikk. li tax ñu baare yoon parce que dañuy gis dafa ko bëgg a dama wax tur bi direct pour direct. le préfet de Ziguinchor il a été yi. na doon léegi ñu ne Ziguinchor nag already dina fi am du préfet loolu duñu ko nangu tey duñu ko nangu loolu mooy ñuy xeex chauffeur yi ne état bi na jël mbir mi te saafaral ko au président de la République monsieur Macky yi mooy suñu dawat bi gën a mag moom lañ bëgg leen bu liggéey rek gardien bi day dox liggéey dina parce que mille personnes war rek ñaar nit wala ñetti nii loolu moo tax mooy suñu premier tawat tukkikat yi ñoom nañu dañoo sonn. ñun mënuñu jógee euh, Dakar depuis démb ci guddi ba léegi depuis démb midi ba léegi añuñu reeruñu te ñu ngi yore ay xale nar nar nar fii taxawaat Ziguinchor ngir lan ay ay yow loolu mënul am. jafe-jafe yu blocage bi amal bari na ñu gën cee ràññee ambulance bi doon wuti hôpital régional te yàgg lool di xaar balaa moo am digal ngir dem yoonam manifeste bi jeex ca guddi ñu jàpp ni fukki waxtu ak benn ci suba la tàmbali woon. ñu wax ci coupure euh, courant yi ak jafe-jafe yu muy jural yenn entreprise yi dañuy sonn euh, ci kon euh, jënd gasoil ak lu ni mel ak groupe électrogène loolee lépp nag di daal di wëlbatikuwaat seen kaw bu weesoo charge ñu amoon am kon leneen lu teggeeku seen lu tegu seen kaw terewul nag bu facture yi ñëwee saf sàpp entreprise yi di ko jooy ko de ci jamonoy tàngaay bi coupure courant yi takarnaase mu waral yenn perturbation ci yenn entreprise yi entreprise bii di yëngu ci wàllu climatisation di dépassé lu tolloog fukki junni ci carburant ngir doxal groupe électrogène yombul moom yombul yombul yombul parce que coupure yi remarqué nañu temps yëpp dafa commencé waat saa yu amee on ne obligé d'acheter di carburant parce que groupe lañu yore te liggéey jàmbur la ñu yore te euh, jënd carburant bi mënul répercuté wu ci factures yi. dañuy jënd carburant à de cinquante mille bu loolu cinquante mille yi mun na dem deux jours trois jours bu coupure amul mun na dem ba quinze jours. donte am na mbëri groupe électrogène yi di amal yenn saa yi ay dérangement ci ñenn ñi. suñu waxtaan moom léeg-léeg def ñuy déranger quoi waaw mais nag su après su conti su euh, courant bi tàkkaatee moom du am dérangement daal. soo bëggee wuy téléphone da ngay jóg avancé ba fële nga nga nga soog wuy téléphone. waaye groupe yëpp yemuñu mu am ñenn ñoo xamante ne nii seen coow demeewul noonu. heureusement groupe yi lu muy tàkk nag bruit yi bëriwul quoi mais su tàkk moom du fort noonu quoi tuuti lay takkee quoi mais pour man dérangement amu si quoi. coupure courant yi di am manque à gagner bu ngan ci entreprise yi. ñenn ñi di jëfandikoo groupe électrogène ngir gën a mën a xeex manque à gagner boobu. Euh, vraiment métti nañu daal mais mënuñu si dara. ñàkk pexe euh, ñaari téere ngi ci wolof nag lañu ko bind euh, pexe du ñàkk Koura moo ko bind waaye it euh, sëy xare la Ndeye Daba ñaan ñoo ko bind ñu nag suux ci ba bu baax ci tolof tolof yoo xamante ni askan wi ni ngi koy dund li waral kon ñu def ko ci wolof fexe it ba ñenn ñi mën caa jotee Lamine alin Alioune Diagne ñoo ci indi leeral. ab téere ñu duppee pexe du ñàkk la kii di Koura bindee jëmale ko ci askan wi ngir yeete ak jàngale moom Koura Sarr dafay wane tamit naka la buur wala ko am alal war a mel. téere bi téere lépp la waaye ci jublu mooy que ne bu yàlla defee njiit amal yërmande xam nga li ma la wax amal yow tam yow mi yàlla jox nga ñàkk amal yar ak teggin gis nga ki yaru moo mën ku muus. soo amee yar am teggin loo ca dem loo ca ca dolli rek dem kon yar ak teggin ak yërmande moo yor àddina bi. kii di Ndeye Daba Niane ci téeram bu mu duppee sëy xare la mu ngi wane naka la jigéen war a mel ci kër sëyoom. booy sëyit danga war a mën a muñ ndax muñ dafa bokk ci sëy te muñ biit boo ko defee dafa am foo euh, loo teg sa bët li nga teg sa bët mooy mooy sa xale yi ndax muñ gépp pour ëllëg xale yi tekki la jigéen day sëy ndax xale yi tekki. mu nekk ab téere bu am solo ba tax na bëri ñu ci njëriñu ba suma tey. am na at moo xam ne bi université Dakar ñu def euh, langue ay arabe ak euh, espagnol yooyu téere leen doon jàngal jëloon jàngale ndax xam nga boo jàngee dara. jégalu ci élément booba du ñàkkoon ñu desiwaat ci dugg ci wàllu tàggat yaram ma wax ci wàllu football euh, la ko dalee dimanche ji ñuy dëgmal AS Pikine danañu dem ca Gambie bu ñu ca noppee fële euh, ca Mali ngir waajal Champions euh, League fii ci Afrique ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo jiitee kuréel googu ñu ngay naqarlu Euh, fa nga xamante ni daal fa la ñu war a jouer benn la fa euh, te nag gis nañu ni euh, nekkul ci état ngir mën a recevoir rawatina ci Champions League yooyu Cheikh Tidiane Dione ak Modou Diop am nañu ñu ca la le samedi incha allah. AS Pikine moom mu ngi waajal li nga xam te moom mooy Champions League yi nga xam ne war nañ ko amal uh, ci Afrique ngir mën a def ay jongante yu baax looloo tax sax dirigeant yi jamono ji ñu ngi nekk ci wutum koppar ak naka la ñuy def daal ba daal di renforcer lii du bi. on a besoin des sous comme li ñu mën a def mooy di liggéey l'équipe depuis les deux ans là dégg nga mën naa wax ni les dirigeants mosul jëlaguñu jëlaguñu benn yoon mën naa wax ne kenn ci ab défenseur la ci ASFA yenn gaa la jógee ñoom sax joué nañ fi ni daaw euh, ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Jambaar moom ab Camerounais la turam mu ngi tudd Brice euh, Bangsan. un international béninois il est jeune et il leneen loo xam ne tamit waxtaanee nañ ko ci point de presse boobu moom mooy stade Alassane Djigo ni mu personnel. L'autre chose, c'est de jouer La fois passée, j'ai entendu le président de Fédération sénégalaise de football, M. Augustin Senghor, euh, mu wax ni euh, vraiment euh, pour ñoom jàppatul ni Pikine war na mën a recevoir à Pikine ni ñuy wax sax côté Guédiawaye Amadou Bari ou Alsa ou comment dirais-je Demba Diop. ndam yi nga xam ne jot nañ ko am ci saison yu ñu weesu. daal di koy conserver maanaam jëlaat ko nekk na loo xam ne bëgg-bëgg bu mag la si ñoom ngir nag mun a am lu ni mel ñi nga xam ne ñoom ñooy waa AS Pikine ak préparation bu baax moom la ñuy waajal. l'équipe se prépare euh, il va quitter ici incha allah. ci dimanche dimanche dëkk mën la ñu war a bàyyeekoo fii euh, ci Sénégal wutali ci camp bi ngir fukki fan ak juróom yeneen fukki fan ak juróom yi tamit ñu war a dem fa nga xam ne moom mooy Bamako su ko defee mu war a nekk weeru lëmm goo xam ne dañuy waajal la compétition yi nga xam ne war nañ cee bokk yépp ñu des ci wàllug football euh, wax nag ci euh, Maroc la mu bëggoon maanaam daal ñu dàq euh, lu soxal kon Coupe d'Afrique bi ak jàngoro Ebola ju ñuy wax fii ci Afrique saw jant loolee nag CAF daal ko koy bañal fii ak booba nag am na ndaje mu ñu fa jàpp ñetti fan ci weeru kon novembre fële kon ca Tunis loolee kon dañ cay xaarandi kii di Hamid Faridi kon conseiller technique la ca ministère bi ñu dénk wàllug tàggat yaram. ma am na lu mu jot a wax ak suñu nattango yi nekk ci rajo Futur Média Le Maroc est toujours candidat à l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc a seulement demandé. réew Maroc ba ngi daal di organiser li nga xam te ne moom mooy Coupe d'Afrique des bu 2015 bi waaye daal ñun li ñuy sàkku moom mooy ñu daal di koy dàqandi su fekkee mën na nekk wala boog ñaareelu proposition bi dem na sax ba ci atum 2016 euh, ñu daal di organiser nga xam ne moom mooy Coupe d'Afrique des Nations ndax suñu xoolee si ginnaaw ci atum 2012 ak lu ni mel jot nañ koo dund. Euh, waaye nag waa CAF daal ci seen tontu ñoom li ñu xamal jamono ji moom mooy nañu xaar ba ñaari fan ci weeru novembre su ko defee ñoom euh, ci final bi nga xam ne war naa am ci coupe euh, d'Afrique des nations bi ñoom nañu war a mën a jox tontu bi nga xam ne moom la ñuy xam daal donc le 3 la ñuy xaar réponse boobu ci ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi ngànk lépp lu jëm ci wàllum football ci réewum Afrique yi. 3 novembre une réunion euh, entre les instances de, la CAF et le, les responsables marocains pour euh, répondre de manière officielle et définitive à la proposition marocaine. yegsi ci euh, dossier aada ak cosaan ajuma ji nag tey modd la ñu indi gis nañu ni daal euh, la xewoon ay années sant ak yu ni mel moom la ñuy euh, delloo si greffage yeeg teg yeeg raju yi ñu bari daal ñu ngi koy teg suuf daal di fésal style kon coiffure afro yooyu salon yi nañu ko gisee askan wi nga xamante ni ñoom ñoo jublu ci lu ni mel Sara Cissé Pafal ñoo ci indi ay leeral wax ñu gën ko joxaat gëdd fépp ci àdduna bi ñi yëngu ci wàllu aada taxaw ngir fesal taaram jaarale ko ci ay defile yu mag mu mel ni du tissu bii di wax rekk la ñuy dooleel ndax leneen lu ñu gis mu jëm ci wàllu bopp ak coiffure li ko dalee ci Solange Knowles jàpp Oprah Winfrey wala sax Alicia Keys star yu mag yi fekk baax ci Amérique ñoom wàññi nañu greffage wala sax mèche seen karaw lañu yore waaye nag dañu ciy def seeni feem fii ci Sénégal ñi ngi wuti coiffure mbir mi soxal leen ba tax ñu dugal ci seen loxo. man moom avant xam nga rek neexuma woon noonu mais bi ma si commencé liggéey la ma neex neex na ma daal parce que xam naa ni karaw bi dina nekk en bon santé sa deru bopp bi tamit dina dina dina du am ay yenn feebar yi di nga ko éviter daal mais. sans dépendre si nit ki nit ki si nit ki moo koy bëggal boppam daal parce que napp il faut nga bëgg ka nappi di karaw bu ñu yokkul dara dafa xew nag jamono yi ci internet bi lu ëpp juróomi million gëstu di misaal bi ay soxna di dem ba ci wax ay ngëneelam Sarah njegemaar la bu taamu doon nappi. c'est dur à entretenir mais je je vais tenter le coup parce que pour avoir. nappi moom dafa jafe toppatoo waaye ba tey moom a gënal défrisage. ndax défrisage baaxul. et en plus les les produits défrisés sont pas bons pour les cheveux décidé à rester nappy pendant encore longtemps. ouais pendant toute <laughs> sa karaw nag am lu mu laaj waaye ñi ciy yëngu di dalal xel yi produit yi ñuy jëfandikoo ne amul benn ngaañ. produit yi simple la ñuy utiliser. cherul franchement cherul. parce que ñoom lu si bëri huile de ricin la ñuy utiliser wala huile de baobab moom la ñuy gën a utiliser wala huile d'olive huile d'olive moom lu ñuy def da ciy bokk ak karité lu ñuy def karité da ciy bokk. lan dafa xew waaye dellu si waatu karaw bu ñu raxul ci nit ku ñuul am na solo ci wàllu taarix nappi attitude ma nga fekk baax ci Black Panthers di ay doomu Amérique yu doon bàyyi seen bopp muy sëq ci ginnaaw njañ boobu nag politique bu dëggu ci ñoom moo ca làqu woon. gërëm ko Sara se yegg si kon ci bàcc bu mujj bi yenn kaay yi la ñu xëy ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf bu ndem si yàlla Basiru Fay dekkiwaatul wax ki ko rey gëm naa ne du gaaw feeñ le quotidien nañu benn waay bu ñu naan tombongwaal yi la ñu ko jiñoon waaye yëf ya bari coow lu ci am xii ni guddul jeex moo ci am journal bi di laaj ndax règlement de compte la ci biir police wala ndax règlement de compte politique la en li ci journal bi gis moo di loolee dug njuumte gu bawoo ci policier yëf ya ki ko def lu mu yàgg a waajal la ba Bassirou Faye weddi procureur bi ba mu set wecce ndax nee na bokk na nekk ak benn policier boo xam ne ma nga woon ca jàppante yi woon ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru fa la jëlee gaañu-gaañu ci bët bi ba ñu yóbbu ko l'hôpital mu bokk ak moom nekk waa joojee mi ngi wuyoo ci turu agent Diandi nee na fa mu tëdd moom agent Diandi fa la ko enquête kat ya fekk ba ñu dikkee li ñu doon sàkku ci moom moo di na ne kii di tombong waali moo rey waa ji nee na lépp maa ngi koy dégg agent Diandi la mu leen wax moo di su ko waxee damay fen ne gisuma benn yoon fu tombong waali tiiree populaire nañu kii di procureur ak ki mu tey ne mooy kii rey Bassirou Faye am na coow muy waali tombong ndax bu weesoo mbokki boppam mbokki Basirou fay ci boppam ñoo ko njëkk a Ibrahima Sombel fay di mag ci Basirou Faye doo nit ki amee kàddoog njaboot gi xëy ñu xamal ci journal bi di populaire ne ki gars yi jàpp ne moo rey Basirou Faye ñu naan ko tombong waali rey Basirou Faye ki rey Basirou Faye seet jaañ ma fekkoon ba mu na ko kookee bokkut ak tombong waali bokkut ak ki ñu jàpp dañu ko bàyyi mu dem ñu bàyyi ko foofee moom Ibrahima Sombel Faye ci populaire te fekki nijaayi tombong waali ci las yéenekaay yéenekaay bi dañu dafa weddi procureur ba nday tombong waali nag xool xol bu jeex tàkk la nekkee moom tombon wàlli la Sénégal nañu doomi sandarma ndeene wàlli la sët ci buur ñaani tukkulóor ci nday kaserne Samba Jéeri Jàllo ga mu màggee journal bi lañu koo fa laaj lu xam ci tombon wàlli li mu lay wax ab yar ak i teggin akuk sell la ñu ko xamee gannaaw ba mu jàngee ba dem ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru fa la fa jugee toppi tànki baayam dugg ci l'armée bi dugg googee mu dugg ci l'armée bi laas nañu du ko gaaw fàtti bu mukk ne aw turam mi ngi ñuy jaabaa jonge ci faatuk mi awagul yoonu fay ne njaboot boobu di avocat yi di njabootug Bassirou Faye li gars wax dalul seenum xel maître Sidiki Kaba yéen kaay bi nañu moom la mu jàpp moo di yëf yi commanditaire la Sud Quotidien nañu nguurug Sénégal ñetteeku na ci yëf ba mu set wecc dégagé nañu seen responsabilité ki ñu jàpp ne mooy responsable lu faatug Bassirou Faye di tombong waali ku ko musut a gis xooli ko ci populaire quotidien mbaa la Sénégal ku bëgg xam mooy kan xooli ko ci observateur bil journal bi 1988 la Blaise Diagne jóge fa dem université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñaari at def ba mu ca noppee la doon sandarme def fa benn at bàyyi dem doon policier ba mu noppee ca formation baak ba ko coow la dabee yàggul du taaw du caat am na juróomi rakk ak mag ñaar correct la ku bëgg liggéeyam la te ku dal la nijaay ja moo ko ko seddeel ci observateur mbirum bas ak tombong libération xëy ci xibaar lu yéeme seet jaañ mi nga xam ne nee fekke na ba ñu koy rey te xam na kan moo ko rey journal bi ñu ba ñu ko yóbbu mbubboo tegal ko takk der ya newoon ci université ba ne ko kan la ci ka mu njëkk a joxañ waaye la joo xamante ne ji laata yëf yi di xew jóge na ci université ba ba treize heures jotee la dem ndax dafa amoon i gaañu-gaañu ci loxo bi moom la demoon doon faje gannaaw bi moom seet jaañ ca la nangoo ne dafa jum du woon kii yéen a kaay bi dikk ak ñun ci duy bi nga xam ne moo nekkoon ci loxoy étudiant yi duy boobee jógewul ci ngànnaay bi raj ba tey libération xëy moom nee na ca këram la toog di déglu rajo bi dégg ne gaa yaa ngay jàppante ak étudiant yi gannaaw deful dara day dem jàppale gaayam yi ba tey tombong waali ne ñi ngi koy fexel ngir dugal ko waaye ñuy jéem loole na leen leer ne du dugg moom kese ñoom kese ñoo mën a génne seen bopp ci guuta gi ñu dugg maa nga ca futbal ba wàllu tàgga jaram ak stade yéen kay mi dikk ak ñun ci gaynde Sénégal yi nga xam ne nee na weeru novembre weer la woo xam ne bu ñu ca góorgóorluwul du sotte war na noo daje ak Botswana war a daje ak Égypte lu mu laadi laadi ñaari max yooyee war nañ ci lijjanti ñeenti poñ yi di sa gànn gi bokk ci football kat yi Sénégal yi moo xëy amee xët u njëkk waa na keroog Sénégal ak Tunisie am na lu leen manqué te li leen manqué ma nga woon ci milieu ba moom milieu terrain Sénégal ne li mu gën a bañ ci wàllu football bokk na ci bale kaw ci kaw loolee ma dem xooli sunu lamb mi xëy dugg biir Fass yéen kaay bi nañu mbay gee dafa lajj Tafa Gueye dafa lajj ñoom ñaar ñëpp mas nañu dégg Tigre de Fass waaye kan mosu cee dégg roi des arènes journal bi di laaj ana kan mooy mës a dugal ndombal tànk roi des arènes ci biir écurie Fass ñu gërëm ko sant ko moom Mamadou Mouhamed Ndiaye jaajëfal leen yéen ñu ñu àndaloon benn waxtu ba léegi incha allah rédaction bi dina dellu si euh, juróom-ñaari waxtu bu tegee fanweeri simili ak juróom-ñetti waxtu euh, ñu yendu jàmm jërë ngeen jëf.